ñoo ngi nuyu mbokk yëpp yi nga xam ne teew nañ fii ak ñi nga xam nañu ñu ngi topp ci barab yu wuute ci ture kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu liggéeyal ku tedd gi muy kuréel goo xam ne euh, ay ndaw yoo xam ne xam-xam moo leen yitteel euh, liggéeyal sëriñ bi moo leen liggéey yitteel te jaarale ko ci xam-xam ñoo koy taxawee xam nañ ne saa yoo xamee ne màggal ñëw na kuréel gi am na ay jataay yoo xam ne dana koy amal comme niñ ko dundee ci jamonoy màggal gi waaye naka noonu it saa yoo xamee ne gàmm gi jub si na am na ay jataay yoo xam ne it euh, dana ko amal ngir waajale ko gàmm gi moo waral ci fan wax am na ay yu am solo yoo xam ne amaloon nañ ko te àndoon ceeg euh, muqaddamatul xidma ci chaîne bi nga xam ne mooy euh, Grande Mosquée TV nga xam ne ci lañ amaloon ay jataay yu am solo ceeg ay mbokk yoo ne ay gëstukat lañ ay boroom xam lañ ci noonu yi nag la ñuy amal jataay bi nga xam ne tëjte lay doon ci jataay yooyu nga xam ne moom lañu amal ngir waajale ko gàmm gi di sant mbokk yi bu baax a baax yi nga xam ne euh, teew nañ ci jataay bi euh, mu doon jataay boo xam ne it jataay bu bu am solo la ngir ñi nga xam ne ñoo ko fas yéene seq ku ne xam na ne yoonu murit dafa doon yoon woo xam ne comme yoonu tasawuf yépp dafa jox wàccuwaay li nga xam ne mooy wird mu doon loo xam ne na ci at yi yu mujj yi gis nañ ne débat yi bari na ci lool mu am loo mu doon loo xam ne lu am solo la ngir xëy na ñu bari ci mbokki taalibe yi réelé woon nañ wàll googu nga xam ne dangay genn wàll ci yoonu murit muy di jëm ci wàllu wérd moo waral ñu dajale woon ay boroomi xam-xam ngir ñu waxtaanee tomb boobu nga xam ne tomb bu am solo la incha allah ñi nga xam ne ñoom lañ ci fas yéenee àndal mooy sëriñ Saaliwu Jaxate nekk sama loxo càmmooñ euh, di boroom xam-xam di gëstukat euh, di ko jàmbaare ci yoon wi di liggéey liggéey bu am solo ci fi nga xamne moy darul maarif al islamiya bi nga xamne mo nek ci juma yi Touba di dom ci al hadji mbake jaxate yalla na suñu borom bayiko fi muy liggey liggey bu am solo insha allah it fasna ñu ande serigne mustafa job al kokki al faylasuf al kokki di geussu di euh di ko geeyju it man nañ ci walu tasawuf na ci walu mom allah mi ngi ci yoon wi xamna leg mu naka noni eh, it danañ ci ànd ak Ahmad mbokk di momit it di gesukat di jambar di borom xam-xam di ko ham ne it eh, karena min nañ ko bu baax a baax ci wàllu yi ci tem yo xam dafa aju ci walu tasawuf rawatina lu jëm ci walu kon incha allah ñoom lañ fas yéene ànd ak ci jataay bi eh, incha allah ki nga xam ne moom la jox kàddu gi mooy Serigne Saliou Diakhaté dana ñëw waxal ci di jëm ci wàllu wérd ci boppam wàccuwaay wi nga xamne amna ko ci Euh, tasawuf incha allah loolu la ñuy fas yéene indil bu noppee incha allah danañ jox Serigne Moustapha bu euh, egsee incha allah Serigne Moustapha Diop mu waxal ñu Serigne bi taxawaay bi nga xam ne am na ko ci wérde yi kon ne xam na ne Serigne bi euh, yoonu tasawuf yoon la woo xam ne mooy yoon wi mu jaaroon mu am ci wàccuwaay woo xam ne am na ko bu baax a baax rawatina ci yoon yi nga xam ne jot na cee jël wérde mu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne am na ko ci kon incha allah ñëw jàngatal. taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci wàllu wérd yi njëkk muy am wérd wi nga xam ne nag mooy wérdu boppam mooy wérdul maxuus min allahi bi wasitati rasul sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu daaneel foofu ñu ànd ak sëriñ ahmad nag incha allah mu ñëwal ñu nag ci wérdu woowu nga xam ne nag mooy wérdu sëriñ bi mooy al wérdul maxuus xamal nañu mooy lan ak jagle yi nga xam ne am na ko kon incha allah ci tënk waxtaan wi noonu la fas yéene jàllee bu mbokk yi noppee incha danañ jox lenn ci mbokk yi xam ne teew nañ fi ñu def ay commentaires yoo xam ne day jëm ci wàllu wi kon xam naa duñ guddal dañuy bàyyee kàddu gi ak Serigne Saliou Diakhaté bu ko defee mu ñëwal ñu ci li nga xam ne mooy wàccuwaay wi nga xam ne al wird am na ko ci li nga xam ne mooy tasawuf incha allah danañ ko jox ñaar fukki simili bu ko defee mu tënk li nga xam ne moom la ñuy jàngatal ci wàllu woowu Serigne Saliou bismillah. alhamdulilahi wa kafa wa salawaatullahi wa salaamu ala abdihi al mustafa وعلى آله وصحبه وخديمه أهل الوفاء إني أخاطب الجميل فيه وفي آل العدول وصحبه بلا خمول بسليا وسلمه خافر لاغفر كل ما تقدما وما تأقر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, ñoo ngi am mbégte di sant suñu borom di Juli ci yonente bi Ali alayhi salaatu wasalaam di ndokkee la ka ñaanal suñu kilifa gu tàdd gi sëriñ muhammadul muntaqa xafisahullah wa raa suñ boroom gën ko fee bàyyi gën koo sàmm gën koo tabli ak wér-gu-yaram ak mboolem jëwrinam yi ci mboolem di nekk di kuréel gii di liggéeyal ku tàdd ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñi ngi koy def lépp rek ngir di dundal ruu yi murit yi ci xeetu munaasaba yu am ci yoon wi eh, wala ci jamono yi eh, di jël cant ak gërëm yooyu nag di ko teg ci loxo sëriñ Sambuso suñu mbokk mi ak mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci kuréel gi ñëpp ñu jot li ñu ko ba ci mbooleem kuréel yëpp di sant ak di gërëm kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi xam naa ñun as ndonga lañ rek waaye ñoom borom yi xam-xam yu mag yi ñu ko sàqal lu mel ne sëriñ Moustapha Diop kokki nga xam ne eh, ku ci yaatal la ci omda ku yaatal la ci wàllu xalimaam ak sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne ñëpp it xam nañ ko ci loolu kon xanaa di eh, doggant rek di dugg ci ni ko sëriñ Sam waxee Euh, werd bu ñu bu ñu ko waxee ci tasawuf ñu bari dañ koy firee euh, al amal donc lan ngay liggéey li ngay def fan yi boo yoree kurus lan ngay liggéey fan yi daa nga dégg mag yi ñu naan ban ban yàlla ngay liggéey fan yi noonu lañ koy tolloolee ci wax yi nu mën naa am bi ñu gën a jege werd mooy ab dog ab dog ni ko sëriñ Tuubaa xamee eh, nga xam ne baat baat bi benn baat la eh, jamono bi mooy awraat daanaka ni ko borom xam-xam yi waxee ci tasawuf rawatina ñi ñuy dellu muy a tasawuf a sunni imaam Saruux yaatal na ci lool ci eh, uddatul muridi saadiq ci imaam Saruux li tax ñu koy tudd waxtu wu nekk usulu tasawuf a sunni bi sëriñ Tuubaa nekk dafa wax ne ci bu imaam Saruux ci la nekk loolu danañ ci agsi danañ danañ ci agsi daal koy indi ni ko imaam Sarr waxe waxee nag sëriñ bi tënkee na ko noonu bu ñu demee ci Masaalikul Jinaan ci bayitu 266 danañ fekk sëriñ bi daal di tàmbalee leeral lan mooy werd maanaam ban ban ban wàccuwaay la am moom werd ci boppam ni ko imaam Sarr ko waxee rek la ko sëriñ bi leerale daan ne ama isa jahilta zënal wirdi faalam bi annahu azim al qasdi mu ne bu fekkee ne da nga réere mbirum werd mooy dog yi nga xam ne dañ koy def ci tasawuf xamal ne mooy jubluwaay bi nga xam ne moo gën a lu màgg ab jubluwaay la ci wàllu tasawuf lu màgg la ab jubluwaay ci wàllu tasawuf daane mawqiuhu fi sarci min ajalli mawaqici alxurabi inda al kulli booy xool wàccuwaayam ci sariya ak gëdd gi nga xam ne boroom xam-xam yi jox nañ ko ko ci tasawuf a sunni nga gis beneen gëdd bu yore lu toll noonu ci tasawu a sunni dana jafe moo tax mu ne wàccuwaay bi gën a tedd gën a màgg ci mbooleem boroom xam-xam yépp bay nga jox ko ko moom werd daat koy leeral nag ni ñuy tàmmi xam leeral baat mooy baat bi fan la doore ak fan lay moom xadd xadd sax la tudd kon indi na sax limite bi nga xam ne fi la baat bi yam daanne wa adduhu inda sawil ifaada say un murattab murattabun min al ibaada fi waxtihi mu ne ci wàllu njariñ yi nga xam ne werd am na ko nag mooy ginnaaw bi nga defee dogi farata yi ndax e, ci tasawuf as sunni ñoom dañuy faral di séddale werd ay dog ñaari xeeti dog dañ am na dogi farata ak dogi sunna e, moom nag dog bii ñu koy tuddee bokk ci li ñuy tuddee ndollani yiw yi ci la bokk mu ne boo koy daytal nag limite bi ab limitam mooy eh, dara la loo xam ne da nga koy yokk ci jaamu yàllay farata yi ginnaaw bi nga ko defee ba noppi dégg loolu euh, ci gàttal sëriñ bi noonu la ko dooree daat ko ci tàmbalee tënk moo tax wérdi ci boppam li ëpp ci ñu koy taxarif ngir bëgg mu gën a jege ñoom dañ la naan wérdi mooy sikrullaahi rek yaakaar na borom xam de ci la bokk moom ci côté boobu la gën a jëm sax dana wérdu mooy mooy tur mooy tur yàlla rek tudd yàlla rek ginnaaw bi ñu xamee baat bi ba pare dog yi ngay def mooy tudd yàlla rek donte loolu loolu lépp sëriñ bi ñëw na ci ndax daanaka ci masaalik sax ma des naa wax ne xaw naa def diraasa ci werdu yi mu daan jëfandikoo mooy werd ci boppam lan la làmboo ak lan mooy njariñ yi li nekk ci biir bu fekkoon ne nit la ko ñuy def dirasa pour bëgg a génnee mën naa am taasil ko ci wàllu sariya ak yu ni mel euh, moo tax euh, werd kon ci li ëpp solo yi ëpp njariñ ci tasawu ay wàccuwaay ci la bokk ndax daanaka lii bu wax nit ki ba tax mu bëgg at taxalli di ittewoo at lii loola mooy li koy buux ba tax muy wuti ab sëriñ werd nag léeg-léeg nga gis ne danay taxaw sax taxawaayu ci ñenn ñi taxawaayu sëriñ ci wàllu ni muy mën a laabali nit ki ak ni mu koy wàllu wàllu setal ak ni mu koy wàll ni mu koy war a mën a mën a mën a def bu fekkee ne nag da nga koy jëlee noonu nga xam ne werd mooy ay tur tudd ay turu yàlla yoo xam ne des koy def muy ay istixfaar moo xam ak ay basmala moo xam ak ay asbala comme ni ñu ko xamee ci maaxuus ak yeneen yi nga xam ne mel na ne moom yooyu it borom xam-xam yi dañ koo màggan lool daal koy réyal lool ni ko bi waxee ci masaalikul jinaan daal di wax ne wa asamu ñoom borom xam-xam yi nee màggal nañ lool basmalatan wa xawxala takbiratan asbalatan xasba xasbalatan wa xamdala xul wa salatan wa kasa ka xasbala wa misluha wa misluha istighfaratun la te yooyu mooy mooy werd yi li ngay gis taxi biir werd yi li ngay gis loolu mooy nekk ci biir mooy mat moonul werd li nga koy gis doon boo jëloon di xool werd lan moo ci nekk ba kut asil lu nekk fan la mooy addis bi ak fan la jógee rek ngay gis ci biir yooyu ngay gis ci yooyu nee na boroom xam-xam yépp màggal lañ ko ba ñoom ñépp it xaw nañu wax ne yii nii benn boo ci ber boo ci bar ber addis yi ñëw di ko dëgëral ak di ci joxe ay njariñ xaw naa takk lool moo tax sëriñ bi daal ci teg ne wal kullu min na lahu laha fawaidu benn boo ci jël rek boo jëlee la teg ko fee xool addis yi ci wér ak li ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax da nga gis ay njariñ yu bëree bëri moom yaatal na ci beneen téere muy sirkul jawahir di ko xaw a ber benn bu ci nekk mu indi ci ay meññitam ak ay njariñam moo tax mu ne wal kullu min hunna laha fawaidu maxsuusatun biha liman yujaahidu ben bu ci nek rek amna ay njariñ yo xamne daf ko jago mom mom hasbal amna ay ay njariñu boppam basmala am ay njariñu bopam xawxala am ay njariñu bopam ak yoy werd nak lépp ci werd yi gis dafa baaxoo di bolé yoy yëpp ci ben mbir daal di wal kullu minhunna laha asraru kasafaha fi suhufil ahbar ku mu ci yoy yi amna ay mbóot yu ko yàlla jagale amna ay njariñ yu ko yàlla jagale yo xamne boko ko bëggee xam da ngay dem ci lenn ci téere yi fóore yi boo demee dañ la ko gën a leeral bu baax a baax loolu kon buñ ci tàmbalee yaakaar naa ñi ngi bëgg a dégg ne baatu wird mooy dog bi nga xam ne nit ki da koy def ginnaaw bi mu defee ay faratam ba noppi ca dog boobu muy def li muy ay ay aousu billahi min rajim wala ay bismillahi rahmani rahim ak lu mel ne laa hawla wala quwwata illa billahi azim ak lenn ci ay ayat alquran ak salaatu xal nabi ak yu mel noonu comme ni ko sëriñ bi tënkee ci ñaari bayit yooyu ñu indi woon léegi yooyu nag mooy li ñuy tuddee zikrullah yooyu mooy zikrullah ci zikrullah ci boppam moom farata la ci nit yaay suñ borom moo ne ci suratul ahzab yaa ayuha alladina amanu zkurullaha zikran kathiran wa sabihuhu bukratan wa azila suñ borom moo ne nit ñi dee leen faral di tudd yàlla dee leen tudd yàlla sax nga xam digal dalen tuddu yalla ya yaa ayuha amanu zkurullaha dhikran katira dalen tuddu yalla tuddu yalla gu bare bari ci tasawuf dañuy wax ne mam ben xaaxida bu siiw ci tasawuf acc yeneen xam-xam yi sax dañ ko faral wax dañ nan man ahabba shay'an akthar akthara min dhikri nit bu fekkee ne da nga bëgg dara la nga bëgg la nga bëgg di dëggu ci yow da ngay far da ngay far da ngay baril loo koy faral di tudd da ngay gis kenn rek ak njabootam ci biir kër gi ki ki ki ci gëna jégué xolam bu démé bu fenn bu fa gisé xalé bu xawa yëngutu sax da nan ki da sa sa sa ahmaduma wala sa nangam lolou likay waral moy ciofel gi nga xamné motax suñu borom wax ci alquran ne faskurullaha ka dhikrukum abaikum aw aw zadda dhikra lolou bo xolé jàngatee bu la tay diiné di fi tasaaroo xamoon nañ xamoon nañ ne bari na ño xamné buñ dé wat sax ci seeni waajur la ñuy waate wala ci seeni maam lañuy waate ak yu ni mel loolu li ko waral mooy bëgg gi ñu ko bëgg ak cofeel gi nga xam ne am nañ ci moom ci lu bëree bëri kon suñu borom nit ki bu fekkee ne dafa dox ngir bëgg a wuti boroomam munte ñàkk muy tax ko ak zikrullaahi ca zikrullaahi yooyu nag ba ca gën a ya ca dafa bokk ci yeen cay tënk ca Sëriñ Tuubaa di ko andee ci contexte bu Masaalikul Jinaan mooy ci nit ki boo koy def at taxalli boo ko boo maanaam bu ñëwee ci yow nga war koo dij ci sawet wet fas yéenee koo wi viide fas yéenee dindi ci moom lépp lu juunoo loo xam ne indaale woon na ko fi yow laata nga koy recharger laata laata nga koy recharger ci ay baax baax di def taxal lii ci moom loolu dafa dafa laaj nga saytu doomu adama bi bokk na ci la nga la ëpp solo ci la ñuy saytu ci moom mooy emploi de temps fexe ba mu ba mu ba mu charger lépp daal di fees dell bañ a widd ndax emploi de temps bu widd rek. li ci ëpp mooy faral di indi ay doomu aadama bi di dugg ci yeneen yoo xam ne waru caa dugg ci yooyu sax ci la andee ci yi nga xam ne war nga koy mën a jeexal sa temps bokk na ci yooyu ba tey werd ca day lu mënta ñàkk ci tasawuf borom xam-xam yi di ko wax di ko faral di wax wax wax lu bëree bëri. ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wax na ne eh, ci wàllu tur tudd yàlla ak yooyu mas saa fekk saxaaba yi daan wax neen fa fa wallahi la la yamillu xata tamallu ne suñ borom moom bu ngeen nekkee fi moom du yokkat du découragé lu dul ne yéen da ngeen a découragé yàlla boo nekkee ci moom def zikrullaahi eh, waratoo am benn itte wala benn soxla bu dul moom fii ak yaa ngay pare yaa ngay noppi ngir nekk ci moom kon loolu bokk na ci li nga xam ne xamee nañ na ci ci tasawuful islaam yi kat werd daa bokk ci yi nga xam ne munta ñàkk Sëriñ Tuubaa sax da koy faral di tudde ne Euh, ci ci yi dundal ruu yi ci ëpp solo ama dawaamu zikri te wax naan di saxoo tudd yàlla mi ngi bokk ci yi gën a màgg ci yi nga xam ne ruu gi dana koy faral di soxla di ko mi ngi ci majmuu bi sëriñ xam dinaa def indi moom wér nag ci tasawufu sunni yi dafa bokk ci yi imam sarux wax ne euh, juróom-ñeent yi mu wax ne ñoom ñoo ñoom ñooy cosaanu tasawuf as sunni daal di wax ne falit tasawufi أصول تعرف تسعة أسياء لدى من يعرف أولها تلازم تلازم الكتاب وسنة المختار الصواب وترك الأهواء وترك البدع كذاك تبجيل سيوخ الخصع وترك تأويل وجملة الرخص با أجي جفنكو ورد جفنكو ورد مومي داري واني مومي تي جنا مجي ني جفنكو جتاسو في بوك moom imaam Sarux noonu la ko xamale Sëriñ Tuubaa indi na ko ñaari yoon ci yi ma gis benn ci ma xaalaxu niiraan andi na ko fa beneen bi it andi andiwaat na ko moom sëriñ bi ci majmuwa bi mi ngi ci majmuwa bi euh, ru'yatu ahtaarin li kulli xalqi idaamatul wérdi la wacin xaq la bëgg wax idaamatul wérdi la wacin xaq ba tey saxoo werd ci juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne moo fondé tasawuf as sunni yi ci la bokk mooy kon faw nit ki di saxoo ab dog boo xam ne daf ko daf koy dafa mun mënta ñàkk daa lim na wax da minha tarku jumlati ruqas wa tarku tawilin fasa saaruqu nas mu ne noonu la ko imaam saaruq nas ci imaam saaruq ci ñi sëriñ Tuubaa di mujjee tudd ci wàllu tasawuf ci téer yi mujjee laal laal ci la bokk li ko waral it ñu bari xam nañ ko ci tasawuf ndax détails yi nga xam ne mooy waral ak jiiñante dara ci diggante ñi bokkul ay tarixa imaam saaruq da koy tare baat yi nga xam ne day wane ne yow rek la sëb sëriñ di lii ka ca des doonu yooyu yëpp imaam saaruq da koy tare da koy tere moom da koy bañ comme ni ñu ko gisee ci risalatul Xuseyri ak yeneen yi ci ngi ko ciy jënde imaam Sarux nag ci tasawuf sunni moom yooyu da koy faral di dindi di lu am am solo te bu ñu waxee ne sëriñ bi ci la nekk loolu dana gën a tax ñu gën a mën a dégg it dégg it li tax ñaar yi nga xam ne suñuy borom xam-xam ñàkk niñ ciy waxee ñenn ñu ci bari ñu ngi ciy gën a laaj ay leeral mooy sëriñ bi comme mu jaddit ndax dàqoona ak sëriñ bi comme ku mu amoon werd ñaar yëpp. ku amoon werd koo xam ne mënee suta dàq ne am na ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne ci tarixam la ñu nekk ak yu ni mel ndax lépp lu tarixa yi am ñi nekk ci agronome am na ko daan leen ko jox loolu suñu borom xam-xam wute nañ ci mais xalaa kulli xaal euh, imam saruq boo deelee delloo ci téer imam saruq bi da nga jàpp ne warees naa mën a dëppale ñaar yooyu ci biiram ndax nit ki mën naa nekk sayxu tarixa dem ba wut fi yonente bi alayhi salatu wasalaam daal nekk mu jaddit ci mbooram jullit ñëpp ci loolu du jotee dara ak li nga xam ne moo ko amoon moomal ko boppam ba léegi continuer di ko garder moo tax sëriñ bi ci njëlbeenam xam nañ ne euh, ci ak yaatalam ak ci gëmam xam-xam euh, mboolem werd yi nga xam ne fekkoon na ko fi ñu jox ñu jox ko bu ci nekk jiim naa wutaat ci wàllu silsila laata muy àgg ci yonente ba mu koy joxaat yëpp jiim naa wérelaat silsila ba jiima delluwaat ci ay nit suñu borom dimbali nañu na ba xam ngeen ne yooyu Eh, ijaasa yi Sëriñ Tuubaa amoon ci werd yi mu daan jëfandikoo ba léegi jëmmi ijaasa ya lu bari ci isnaadi silsila yooyu ñu ngi dund ba tey ndax boo gisee ijaasa eh, maam Samba Tukulóor Ka bi rek bi mu defaloon Maam Mor Anta Sali loolu day wane ne loolu moom kii man dëgg la mooy wane ne yenn ijaasa yu ci bari ci yooyu mi ngi am loolu li ñi daan wut ijaasa nag sañ-sañ yi ñu amoon ci daan joxe werd yëpp Sëriñ Tuubaa am na ko bi mu àggee ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon lu normal la mu wax ne eh, noonu noonu mu ñëwee ci Irwaa un Nadim wane ne daana toog liggéeyandoo ñett ñetti weer yëpp ba mu ba mu jeex loolu mën naa am ci doxin wi du du premier pas premier pas bi mooy bi muy jëfandikoo benn jëfandikoo ñaar jëfandikoo ñett ba mu amee sañ-sañu ijaasa ci mboolem werd yëpp daana ko boole di ko defandoo ci benn jataay mën naa am nag beneen bi ci des mooy bi mu demee ba nekkatul murit saalik ndax kii wut ijaas toujours mooy ki nga xam ne day nekk ab taalibe ci tariixa day nekk ab taalibe ci tariixa di am sëriñ ki nga xam ne nag dafa dem ba àgg ci borom ba àgg ci yonent bi nga xam ne moo daan joxe ay sirru ak ay awraat mu jël jëmi werdu jox ko ko boobaa nag werdu woowee ku koy jëfandikoo ti ji jëfandikoo too tooko too ko ci ijaasa yi nga xam ne day am ay isnaat yu jaaroon ci keneen ba àgg si ci moom waaye ci moom lay jógee maanaam moom bu la ko joxee en tant que murid bu fekkee ne dañoo tënk ne yow ab murid ngay doon dala ko jox en tant mais joxatula ko en tant koo xam ne moom dafa jëlee ijaasa bi ci keneen kooka dem ba àgg ca borom werd waa nga xam ne moom la ko yonent bi joxoon loolu yi du la am am solo kon jëmmi werd ci boppam loolu na bokk na ci wàccuwaay yi nga xam ne am na ko ca doomu aadama yi jàpp ne mënu koo ñàkk mooy suñ borom moo ko wax inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima waxaat ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min azulumati ila nuur wér di gis nga salaatu ala nabi rek alxuraan saxal na ne day def attaxalli ak attaxalli li yuxrijakum min azulumaati ila nuur day def attaxalli ndax li yuxrijakum min azulumaat day def attaxalli ndax ila nuur waaw day day day day raxas nit ki ba mu set di resarcé waat di ko resarcé waat di ko defaraat ba mu nekkaat beneen xeetu doomu aadama bu sax boo xam ne moo tax sëriñ bi ne boo ci xaw boo ko xawee réere rek xamal ne lu màgg ab jubuwaay la lu màgg ab kii lu màgg ab ab gis ab gisuwaay la moom werd ba tey ci wàccuwaay yi nga xam ne am na ko ba tey ci tasawuf mooy werd day laabal nit day laabal nit day laabal nit ndax boo xoolee li nekk ci njëlbeenu werd yi bu ñu defoon tarkis ci euh, euh, werdul maaquus lu nekk ci njëlbeen nga mooy al istiaasa ak ay istighfar ak muxaasab yooyu ataxalli lay def am nañ ci yaakaar naa majmuux min al adilla ci ay yo yoo xam ne mutawaatir la ci istixfaar ya fa ñëw ak ak ak xasbala yooyu moom ahadis yu leera ci ñëw ñaareel ba mooy werd it xam nañ ne kon day def ataxalli alxuraan moo ko wax léegi li yuxrijakum mina dulumaati ila nuur salaatu ala nabi moom Sëriñ Tuubaa xaw na guddal donte sax nee na kenn mënu cee guddal ci téere bu mel nii waaye xaw ci yeneen i yu bari yu bokkut gën a leeral asalaatu xal bi lan lay def loolu bokk na ci wàccuwaay bi nga xam ne werdu am na ko ci nit ki ndax da koy def euh, bokk na ci yi nga xam ne am na ko it moom mooy day imaan nit ki nga xam ne day faral di werd di faral di jëfandikoo tur yàlla di faral di def yooyu imaanam day gën a yokk loolu it ay ahadis yu ñëw na ci bokk na ci yi yi nga xam ne ëpp ëppati na solo ci nit ki mooy day tax nit ki du amati jot sa emploi du temps day mujj fees sa làmmiñ it ni ko yonente bi waxee ne sa làmmiñ bu di dañ di tooy di di di tooy ci tudd yàlla loolu dafa bokk ci yi nga xam ab jullit mënu koo ñàkk ab jullit mënu koo ñàkk kon yooyu mënees na jee tënk daal ci gàttal ngir jox dafa ne waxtu bi na li ma joxoon léegi na jee tënk waaw na jee tënk ne kon wàccuwaay bu rëy rëy la am ci a tasawuf a sunni dañoo doyloo nag ci li ñuy li ñuy wax ci tasawuf a sunni lépp ni mu ñëwee ci eh, dundub imam Sarux mën na am ci Kunaasa wala mu ñëw ci Risaala Xusayri wala mu ñëw ci Xuddatul Murid Saalix yëpp sëriñ bi da koo dajale waaye ko ci njëlbeeni ñaari bunt yu mag yooyu ci Masaalikul ko Jinaan muy faslun fil wirdi ak faslun fil dikri ca mbooleem nañ ko fa détaillé yëpp na ko noonu la ko sëriñ bi détaillé eh, eh, ba tey kon bokk na ci. yi nga xam ne ba tey werd euh, des su koy digal nit ki ca werd bu ko nit ki xasee ba def ñu ñu ñu ñu koy moytuloo mooy tàmbalee werd ba ci yàgg nga di ko bàyyi loolu ba borom xam-xam ni toog fii am na ci ñoo xam ne bind nañ ci xaw ci yaatal lool xaw ci yaatal lool loolu it dañ koy layale ne boo demee ci oddatul murid sadiq imaam imaam saru xaw na ci yaatal sax bu ma juurul ci xatum Euh, juróom-ñeent fukk ak ñett xatum juróom-ñeent fukk ak ñett ci xadul murid bi muy indi ci aw xaat yi nga xam ne ci ñu war a def awraad yi xaw na ci indi ci yu bare yooyu yëpp daal koy indi dalil ndax imaam Sarux nañu fàttali ko ne moom ni mu nekkee say sayxu suuf yi noonu la nekkoon a faqih bu mag faqih bu mag a mag la ca euh, yoon yi nga xam ne moom la ñuy faral di jël ci wàllu tasawuf sunni léeg-léegi day dem ba ci yàgg mu séddu ko ay yoon yu bari sëriñ Tuubaa nag toujours heure bu jàddee dalee woon fi mu jàdd jëm imam Sarux nag ci al ilmu nadari ci al ilmu nadari dafa bokk ci ñi ma gis ne sëriñ Tuubaa gën na leen fonk ci ak mujjantalu bindam euh, donte nag ci ci wàllu baatin moom ak wàllu yu mel noonu xam naa ne am na yeneen kilifa yoo xam ne moom lañ gis ne moom lañ gis ne ñoom la sëriñ bi gën a faral di tudd tudd lu mel ne Seyd Maxtaar Kunti loolu borom xam-xam yi leeral lañ ko ndax bu ñu gisee euh, ijaasa bi nga xam ne Maam Mor amoon na ko ca mu jóge woon ci maam Samba Tukulóor Ka ñëpp gis nañ ne ijaasa boobu maam Samba Tukulóor Ka mi ngi ko jële jële woon ci Cheikh Sidi Alkabir Cheikh Sidi Alkabir mel na kon ci kunta kunta yi ñoom ñoo nekkoon laata sëriñ bi feeñ ci wàllu jamono li ñu tuddee sëriñ ci wàllu tasawuf jàpp nañ ne ñoom ñoo ko nekkoon ba loolu jur na Mamor Anta Sali eh, tuddee na leen ñett ñett ci ak njabootam tudd na ñett ci ak njabootam eh, loolu lépp day wane wàccuwaay bi nga xam ne tegoon na ko sëriñ Tuubaa it gis nañ ne eh, li gën a raar ndax man bari na ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñi ngi leen di tudd ci lu bare bari sëriñ bi dafa leen fonk ci leen tudd lool waaye néewaa a nga gis mu tudd leen ci wàllu baatin imaam Sarux nag bokk na ci ñi nga xam ne imaam imaam euh, Cheikh Moxt Sidi Mokhtar al Kunti bokk na ci ñi nga xam ne sëriñ Tuubaa du koy faral di tudd ci côté boobu lu baree bari kon kooku ku sëriñ bi joxoon ab wàccuwaay la euh, ku sëriñ bi dëgëraloon lool la euh, werd nag mën naa nekk doobu alxuraan mën naa nekk dogub alxuraan ko sëriñ Tuubaa xoolee ci njëlbeenu sëriñ bi eh, ci wàllu tasawufil islaam yi mooy nit ki bu fekkee ne dafa sóobu di wuti di wuti yàlla dafa mënta ñàkk yoo xa ñoo xam ne ñoo koy teg ci yoon wala yoo xam ne ñoo koy teg ci yoon loolu bokk na ci ay rab bi mënu koo ñàkk eh, waaye bokk na ci ba tey di jëfandikoo yu mel nii avant sëriñ bi ñëw gis nañ ne dalaa'ilul xayraat bu ñu xoolee ci eh, ni ko ni ko imaam Jazuli lakinama dalailul xayraati laysa yumallu fii fil awqaati ni ko sëriñ bi waxee ni ko imaam Jazuli daan jëfandikoo yaakaar naa borom xam-xam nañ ci bind yu bind yaatu ak ni ko fonke woon ci Maroc ak ni daan jëfandikoo li ëpp ci suñu xalaxaat sikri yi ñuy def sax dangay ngay booy booy liir eh, mën naa am eh, tarjama bu imaam Jazuli da ngay jàpp ne li ëpp ci cosaan yi fo dañ koo niroole ba mu ëpp ci ni ñu kuréelee di jàng xasida ak guddi ajuma yi ñuy faral di def ak guddi altine yi ak yu mel noonu yooyu yëpp dañ koy gis ci tarjama bu imaam Jazuli mu xawoon cee kii lool ba sax dégg naa ay net li siiw na bokk ci yoonu murit ñu ne soxna jaara mokkaloon na téere boobu ñuy tëddee dalaa'ilul xayraat ndax dafa bokk ci yi nga xam ne nitu tasawuf da koy soxla moo tax sëriñ bi ci wàllu bind nga dégg nañ muy wax naan wa bi kitaabati ya rabbi rabbi ku la mu taalixin li wa ci rabbi yow suñu borom maa ngi lay ñaan ci sama mbind nga ci yare képp koo xam ne dafa koy faral di yar kon ci wàllu taksi yi nit ki ni mu koy liire ak ni mu koy teewee donte nag la ca gën mooy ki nga xam ne mi ngi faral di jëfandikoo werd yooyu muy jiima def ak teewlu jiima góorgóorlu ci xam turu yàlla yi ngay jëfandikoo li muy tekki lan la ak ni ko nit yi tasawuf yi di di boo koy def ngay jiima def istixdaar ci yooyu maanaam mi nga koy teewlu ba mel ne yaa ngi koy def ci noonu ñu ko noonu nga ko jànge loolu it bokk na ci li gën a gaawal ci yoon wi nga xam ne euh, euh, booy jëfandikoo werd euh, bëgg nañ nga koy defee bëgg nañ nga koy defee bëgg nañ nga koy defe waaw ba tey it ba tey it ba noonu ñu ko waxe ne nit ki buy jëfandikoo buy jëfandikoo buy jëfandikoo buy jëfandikoo werd bi waaw euh, mi ngi bokk bokk na ci yi nga xam ne kon day laabal nit ki day laabal nit ki ci wàllu ci wàllu euh, euh, yi nga xam ne bakkan daf koy moytu yépp di ko gën a dëgëral ci digganteem ak boroomam di gën a suuxat ruum ak yu ni mel yooyu ci Sëriñ Tuubaa wax noonu mu ko waxe noonu la ñuy gisee ne rimaax it la koy junjee parce que andi nañ ci bari ci delluwaay yi ni mu ñëwee fii ci biir waaye dañoo doyloo rek waxtu wu nekk lii kaneen wax bu ñu ko bindee gis ne mi ngi ci Masaalikul Jinaan ñu far andi masaalik bi mooy gën a leer tekkiwul ne masaalik bi nag donte suñuy dalil la ñun yu ñu gën a jege waaye li sëriñ bi wax ci masaalik lépp it mi ngi ci yeneen téere yi ci des amul amul beneen eh, ñenn ñi nag dañuy bëgg toujours ngay tudd téere sàngam ak téere sàngam téere sàngam ngi ñu jàpp ne loolu a ñuy bind comme ni sëriñ Tuubaa nekk borom xam-xam ci ñun jàpp naa ne dellu ci yooyu daal di dellu ci sëriñ bi mooy li koy gën a jege noonu la amee ba tey ay waxtu yoo xam ne ci lañ ko war a def ay waxtu yoo xam ne ci lañ ko war a def kon eh, waxtu yi ñu ko wutal muy suba ak ngoon yooyu it yooyu it du damay bañ a dugg ci domaine kaneen ki nga xam ne dafa mel ne ni ñu ko waxee eh, moo ci war a addu eh, moo war a addu ci yu mel noonu waaye noonu la amee ay waxtu yoo xam ne moom lañ gën a bëgg nit ki mu koy jëfandikoo kon daal ci tënk mënees naa daanee la foofu mooy Euh, taxawaay bi nga xam ne werdu am na ko ci tasawuf mooy ndol la nu yiw la yoo xam ne mën naa gën a yaatu sax ay sikar yooyu def rek boo julee ba pare yeneen naafile yi ci topp loolu ay ay werd lañ koy tuddee boo jàngee alxuraan ba pare yeneen ya ngay sasoo di ko def ay werd lañ koy tuddee bu doon kuy jëfandikoo werdu mu murid lay doon naafile yi alxuraan ñaari ñaari isib ak nisif yi ngay jëfandikoo di ko sëriñ bi ne wax war nga koy jàng lu mu néew néew ci mu nekk naafile guddi yooyu ba tey werd la ci muy nekk naafile guddi loolu it ñaari isib ak nisib sax la ñuy wax waaye dafa mel ne moom juróomi isib la gën a wax ne ci ki mokkal alquran mooy kii gis nañ suñu mbokk yu tedd yi lu bari ci waa kër eh, kilifa yu tedd kilifa gu tedd waa kër sëriñ Habib yi gis nañ ne ñoom ñaari isib ak nisib sax dañ koy tudde eh, dogub jigéen dogub dogub jigéen lañ koy tudde gis naa ñi ma ci gën a jegeen ju bari noonu lañ koy tudde xam naa ne loolu it def waxu ci lettre bi li ci serigne bind sax gis nañ ko lolou ngir wayef ge tax man dafa doye di ba melne ci walu 10 gor gor deug deug deug deug gu ma ko alquran man ko lolou wayef na ci mom koy jefandiko lolou batay tey werd lañ koy tuddé euh batay sikrullah yi nga xamne dang koy def ak bu mu man di donrek rek nga koy jefandiko ca kenn sasulok nga koy def ci mu bok ci ndolle yi lolit batay ba werd lañ koy tuddé werd dal moy ab ab dog bo xamne dang koy faral di def ci ay turu yalla ci nekkul farata yoy ninyu niñu koy defé ak yoyu dafa lëkkaloo ak ki ki ki ci war a topp mooy ki ci war wax waaye am na ay waxtuñu ko war a defee am na waxtu yu muxtaar am na waxtu yu daroori yu ñu ko war a def nit ki koy def it bokk na ci wàccuwaay yi mu am mooy borom xam yëpp dañoo ànd ci ne li muy def dafa sax ci alquran ak sunna ndax la muy def ci biir werd ba lépp mooy xasbala la cay def basmala la cay def xaw xawxala la cay def salaatu ala nabi la cay def istighfar la cay def addu'a la cay def ci yooyu bu ci nekk am nañ ci maj moo xam ne adilla ci alquran yu leer nañ yoo xam ne moom la ci war a def Euh, ni muy def nit ki it ci wàccuwaay bi mooy day dindi ci nit ki ay jikko yu safaanu di def ci moom ay jikko yu baax mooy day def at lii ci moom di def at day def at taxalli ci moom bu noppee nag mu doog a def at taxalli ci moom ndax gis nañ ni sëriñ bi masaalik noonu la ko tënkee ci at taxalli ak at lii bi bi mu tënkee yooyu yëpp ba pare nag ca lay doog a ñëw di doog a indi ci masaalik doog a indi gàllankoor yi nga xam ne mën naa mën nañu gàllankoor ki nga xam ne day dox ci yoonu yàlla bu fekkee ne. Eh, xamul na yooyu ay gàllankoor muy nesadu duniya ak àdduna ak eh, duniya ak àdduna ak ak saytaane ak bakkan ak bànneex benn bu ci nekk mar koy faram yooyu nag ngir mu bañ a am bokk na ci yi nga xam ne mën na laa dimbali ci sa digganteeg eh, sa digganteeg sa borom ba gàllankoor yi yëpp suñu borom musal la ci mooy di wut ab dog boo xam ne da koy sasoo sa bopp di ko def loolu it bokk na ci li muy defee ni ko Sëriñ Tuubaa waxee day yar nit di ko tarbiya da lay tarbiya ak ak tarbiya ay ni mu ko waxee léegi Euh, wa bi kalaami wa bil izaara ihdi muridan wa bi kitaabati ya rabbi ci sama mbind yow suñu borom maa ngi lay ñaan rabbi kulla mutaalihin li wacci rabbi nga ci yare képp koo xam ne daf ko yër ngir jëmmi saa borom daane wa bi kalaami ya wa bil izaara ci ñaar yi it ki taqoo ak man samay wax yi may wax mu koy dégg wala samay izaara mooy ki dem ba yàgg ci man ba dégg ma ba samay junj mu a xam lan laa ci jublu di daw di ko jafe ni ñu ko xamee al izaara ci tasawuf mu ne kooku it maa ngi lay ñaan yooyu moom ihdi muridan la wax maa ngi ñaan nga ci tege ci yoon ab taalibe taalibe nag bu ñu ko waxee ci tasawuf istilaahiyan mooy mooy tekki képp kuy topp aw yoon ci àgg ko ndax gis nañ ne léeg-léegi nit ñi dañuy wax naan ab ab murit warut a jëfandikoo yii di ko askanalee ci Serigne Touba Serigne Touba du ab murit fi ne ab murit la woon ci njëlbeen mais Serigne Touba waasil la waasil la bi muy joxe werd ci werd yii ko yonente bi joxaat bon mu xasee ba àgg ci yonente bi rek la la noppee nekkati ab murit ci tasawuf ni koy waxee ba àggee ci yonente bi la boo xam ne day eggale kon yi nga xam ne dañ koy xayma ci yeneen borom xam-xam yi waxoon ko kenn du ko xaymaati ci xaymaati ci moom ci ki ñu koy xayma mooy kii bu nekk ci yoon wi ci àggagul yooyu daal mënees na cee gën a gën a tënk maa ngi jéglu bu baax xam naa ne xaw naa jaxasoo eh, di doon bañ rek laal ci yeneen yi nga xam ne dafa jege ak ñun borom xam yi nga xam ne nag ay werduloog lañ ñi ngi fi du ñàkk ñoom danañ ci gën a indi ay leeral bu baax a baax eh, ñi ngi jéglu bu baax bépp kàddu boo xam ne xaw na cee jàdd wala xawuta leer ñu askanale ma ko man lépp loo xam ne jub na ci it ñu askanale ko kuréel gi ak bi ni ma koy ni ñu koy waxee toujours suñu borom waxoon na yonent bi rek ne ko ma azabaka min xasanatin fa min allah lo xam wane nga ko ci lu rafet mooy lu jógee ci yàlla jaar fi yow waaye ma azabaka min zayiatin fa min nafsika lépp loo xam ne nag ci ci li nga doon wane lu ci safaanu la ci sa jëmmi doomu aadama ji la jógee moo tax mu mel noonu yaa rabbi ijaalil muridina maa fi hisnika al asini wa samlañ jërë ngeen